Euh, bismillah bismillah asalaamaaleykum wa wa mbok yi man la fi ci saveur planétaire Ma InshAllah, euh, ci BENEN ñam euh, TAY dañuy des ba Sénégal ak ñebbe bu togg gis nga gis suñu tomate concentrée la gis ngeen dama def diwlin bi def ci tomate bi TAL NA gaz bi gis comme ni may tout le temps tomate NON lay talalé ci ñu ñëw ci keroog ci ceebu jën bi dama leen ne woon naa leen woon tomate bi nga xamante ne que turki yoo koy defar mi ngi nii macha allah mi ngi nii tomate bu neex la bu concentré la euh, pot bi 700 grammes moo ciy nekk 700 grammes mooy nekk ci pot bi mais macha allah mën nga ci togg ñett bu dee ay ceebu jën ak yooyu gis ngeen nii euh, lii nii du sax moitié pot bi li ma def fi nii ci cin li ay euh, bismillah ñu ñëw suñu ingrédients yi ñu fi yor ñu fi ak suñu légumes suñu carotte ñu ngi fi ak naajo. Euh, poivron rouge bi dama ko ci sànni chou lii aubergine la batañse bu weex bi la woon laata muy dem ba yor couleur bi muy yor bu violet ba macha allah il faut mu jaar fii it <laughs> yàlla ko bindee noonu kii ñam bi la dama ci bëgg tëmbal sama ay kànja ñebbe gaa ngi nii black eyed peas gis ngeen ko nii dama koo xooj euh, lii suñu keccax a ngi ne la gis ngeen ko géej baa ngi nii muy suñu géej bër yéet ak suñu tuufa donc fii ci gënn bi maa ngi fi ak soble ak laaj ak laurier ak tomate fraîche moom laa fas yéenee ñu liggéey incha bu ci yàlla àndee donc lii dañuy répété waat rek suñu étape bi ñu daan def lii dañ koy taalaale bàyyi ko ba mu dar ci taatu kàddir bi ñu wis ci ndànk suñu ndox cay ko mu jóg donc balaa boobu ñu laal ci xorom voilà liñ koy laal mu daal di judduwaale àndandoo xorom si di jóg ndànk. ay mbokk nañ gis ngeen suñu taalaale bi nii ñuy xamee nii comme ni ñu ko baaxoo di defee rek. ñu yëkkati ñu yëkkati ñu dina sakkanal sa tomate bu sopp la nga def tomate bu bari dana ko jox jiw bu neex comme ni ma ko baaxoo di waxee dana ko jox couleur bu rafet macha allah te nii la ñuy def fay nañ ko ni léegi dañ koy mayaat ñu répété waat lii yeneen ñaari yoon da nga gis ne am nañ couleur bu rafet ñu daal di jël suñu nokkas nag ma nga ne muy laaj bi ak tomate fraîche bi ak soble bi ak laurier bi naa ngi ñëw sànni ci tuuti ci garlic clove bi rek incha allah di ko yëkkateewaale gis ngeen ni muy def ni du ñuul bu mu leen jaaxal du ko seen guubu togg au contraire guubu neex la ko jox ma ah, bismillah bismillah mbokk yi ba tey ci taalaale bi léegi gis ngeen ko nii mu mel dañu ñëw ndànk jël suñu nokkas gis ngeen ko nii nekk ci reen voilà nokkas baa ngi nii soble la laaj la laurier la Euh, tomate fraîche laalaale nañ ci ci suñu garlic clove bi tuuti rek di leen bàyyiloo xel rek ci xorom si incha allah parce que xam ngeen keccax bi moom it dafa am xorom léegi gis ngeen ni loolu la macha allah yi dugg yëpp ñu ngi gën daal di sànni ndànk suñu yëngu yëpp voilà. toujours mel nii léegi dañ koy may mu tëb tox tox rek incha allah ñu daal di ñulu ko gis ngeen ni amatul benn xam-xam ci suufu kàddu bi dara amatu ko ñu daal di ñëw ñul ñulu ko yem rek voilà suñu ñulugee ba nag ñëw def suñu légume ak suñu eh, ñebbe gële ba ci kanam tuuti ba yëpp yi tiit bay toqi toqi ma soog a tëmbal ndànk samay keccax ci suuf man du ma sax am na ñu koy sax ba wow man du ma def noonu sama yaay daanu ko woon defee noonu. Euh, bismillah bismillah mbokk yi dellu siwaat nañu gis nga nii cin laa ngi bax ñu jël ndànk suñu naajo euh, suñu euh, batañse légumes yëpp daal di dugal ndànk tranquillement ñebbe gi léegi lañ ko ci teg moom it mu àndandoog moom voilà dal di jël xaruchu yeeg ñambi geeg lepp lu ñor rek inshallah allah ñu seppi di leen fatali rek ne ñun fi duñu bayyi légumes yi ñu ñor ba yegg ci xol bi donc euh, dañ koy titer rek dal di seppi kànje gu bari gi nak bu mu leen lo man ma bëgg kanje ci sama xol <laughs> man ma bëgg ci sama xol sha allah bu mu fi lo kenn wa kanje gu bari gi fu mu jëm <laughs> xanaa ceeb bi tay insha euh, incha allah ceebu keccax bu xonku bi lañ leen defaral mais beneen yoon dinañ leen defaral keccax bu weex tal Euh, defaral ko bëggëj defaral ko suul jël suñu kong fumé dal di ko ci sanni inshallah mais bi bu xonku bi ni la ko mère job daan defaré sama yaay ni la ko daan defaré voilà ak ah, bismillah bismillah mbokk yi gis ngeen ni suñu ceeb baa ngi ni commencé na tiit euh, ceebu keccax bi légumes yi dugg na mais ñoraguñu euh, tiit nañu rek ñi ngi lax-laxal fi ni léegi ñu jàpp forme inshallah ñu daal di leen seppi ndànk ñebbe gi dugg na ñebbe gi moom it comme dañ koy sóoraale amul problème naajo bi lañ ciy teg ndànk gis ngeen ko nii daal di fab keccax bi teg ko ci ndànk moom it voilà waxtu wi la keccax wi yàgg si suñu kër voilà gis ngeen ko nii su ko defee nag dañuy régler feu bi daal di ko def feu bu yem incha allah bu ñu régler feu bi def ko feu bu yem bu neexee yàlla lépp àndandoo jàpp forme bu ñu paree nag daal di seppi ñëw tey suñu ceeb ceeb bu sew lañ ko fas yéene sóore incha allah daal di nag ñëw sóor suñu ceeb. Ah, bismillah bismillah mbopp yi gis ngeen nii ñu ngi ci baaral bi nii euh, fa lañ nekk léegi dañuy ñëw ndànk daal di génn yi nga xam ne ñor nañ gis ngeen fi ñuy seppi ñu ngi fi ak suñu euh, daqaar daqaar bi nag dafa xaw a ñuul xam naa daqaar yi daaw yu jéeg la woon <laughs> man maa bëgg daqaar man man ci sa bopp maa ko bëgg ñàmb bi mën na génn jàpp na forme carotte bi ñoom ñëpp ñoruñu xol donc mën nañu génn. naajo bi la ñuy mayaat beneen 3 minutes mu tiit rek ñu yëkkati ndànk incha allah keccax nee naa waa keccax beeg kii bi dama koy sóoraale ñu koy waxee ak euh, ñebbe gi mu ne di bàyyi ci biir chou mën na génn bëgguma mu ñor xol voilà dañuy seppi lépp daal di ñëw nag tey suñu ceeb bu ñu paree daal di tànk ñeex daal di suur ñam naa kii bi xorom si baax na xorom si baax na liñ ci def baax na ak euh, keccax bi dugg donc euh, li ci nekk gum baax na c'est bon voilà ma ngoog bi bii chou ñu mayaat ko benn 3 minutes mu tiit yii mën nañu génn voilà te kat li ngeen ci xamul keccax boobu ñu ci tëmbal bu duggee du ko tee dooree de keccax bi ci boppam day dooree <laughs> gis ngeen leen nii keccax gi nga xam ne kenn saafu ko dañ ko tëmbal terewu koo dooree. bismillah mbokk gis ngeen nii seppi nañ dañ ci bàyyi ñebe geeg yéet bi ak tuufa bi dama leen ci bàyyi dama leen di sóoraale incha allah. ak ci tuuti ci keccax gi lii euh, gis ngeen euh, tonni nañu ci suñu ñeex mi sépp baa ngi ne le macha allah tey nañ suñ ceeb léegi dañuy ñëw sóor voilà dañuy ñëw sóor nii voilà ah bismillah gis ngeen sóor bi dañ ko sóor juste ndox mi yem ci parce que dañ ko fas yéenee wesengal incha allah dañ ko fas yéenee wesengal moo tax ñu tànk ñeex mu bari mii nga xamante ne bu ñuy lekk ku bëgg rek nga jël sa ñeex ñeexal sa kanam voilà mais ku bëgg nak mu nekk ceeb yu ñor ndox euh mën nga ko soor ba ñeex mi euh ki bi euh mur ceeb bi voilà gis ngeen ko ni ceeb bu wessé lañ ko fas yéene defal macha ceeb bu keccax dama ci sopp mu wessé mi ngi ni dañ dañu ñëw nak upp suñu cin bàyyi mu japp forme après ba heure yu jéx jot ñu jéx jeq euh, bismillah ñu ñëw ci jéx bu njëkk bi machallah ñu yëkkati ci suuf dóor ci kaw Voilà. macha allah ceeb bi wesen ku bëgg mu ñor ndox nga booy sóor nga yokk bañ a tànq ñeex mu bari kii nañ ko bàyyi mu ñor ñor ba ci xol beeg lépp waaye wesen tànq ñeex mu bari voilà ngeen ni keccax yi saafuñu ko soxlawul muy waw wala dara te teral mi ngi ni doore na xonk cor wala ngeen ni amna naa bu ñu dellu siwaat pour benen jeexe rek lool moy dañuy yek def suñu mise en place inshallah dresser suñu assiette bam téré tere bien ay ci bu keccax ak ñebbe fi ci Saveurs Planétaires aw bismillah bismillah mbokk yi ma ngok li lañ leen indi lon tay fi ci Saveurs Planétaires suñu ceebu keccax ak ñebbe gis ngeen ni jël suñu ñeex ni waaw laalaa la ci tuuti ci ñebe geeg keccax geeg yooyu ndaxaar baa ngi nële laal ci tous les bagages mi ngi nii teg suñu limon ci wet gi ñu ngi ñëw indi diw ñor lu waay bëgg rek yaay bañ donc li lañ leen indiloon tey jii fii ci saveur planétaire di leen fàttali rek incha allah bu leen fàtte abonné ci suñu chaîne yi incha allah vidéo complète bi yëpp ci youtube bi lañ koy fekk saveur planétaire ci youtube bi euh, bismillah bon appétit salaamaaleykum